jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi tey nag dañoo invité ndaanaan mu mag nag kii nga xamante ni nii day sagu Sénégal waaye non seulement sagu tukkuloo yi Baba man maa ngi lay nuyu. Eh, maa ngi lay fay eh, di nuyu suma mbokk Haalpulaar yi ak wolof yi waa tubaab jalaw waa Podor. E Matam Ourossogui Dandamayo et tous les Podorois qui sont à Dakar <laughs> et l'ensemble des Halpulaaren yi nekk fii ci Sénégal <laughs> ak Mantes-la-Jolie <laughs> ak yi nekk ci Europe ci diaspora bi yëpp e di leen wax ne vraiment mi salmi noonu foofu ko bandiraaɓe Halpulaar jërëjëf wax dëgg yàlla nuyu na ay nuyu na Sénégal nuyu biir nuyu na bitim réew waaye nuyu na ñi nga xamante ni ñu ay mbokk ci couleur waaye ay mbokk Halpulaar Baaba Maal mii ngeen gis mu toog international la lu ne woy na ko Baaba Maal mii ngeen gis woy na luy dox woy na luy naaw tey nag buñ ko invité ci plateau bi war na Baaba yàlla mi dara teewul dafa am benn mbas moo xamante ni dafa daanu suñu kaw mm-hmm. ñu gun koo xam ci coronavirus mm-hmm. en tant que porteur de voix Baaba Maal noo jàngatee loolu eh, di ko métti lu parce que tu sais eh, àddina lu yàlla def rek am na lu ko waral. dëgg je pense que ne kilifa diini yi gis nañu le président Macky Sall euh, na ay directives. Mhm. on a qu'à ci directive yi. Mhm. li des na ñu ko loxo yàlla. Mhm. di woo waali wi nekk Fuuta. yi nekk ci addina bi. ku nekk euh, yàlla suren. Ah, mi fii mi juurima ko bandiraaɓe sehlaaɓe alal foofu ko Cerno mhm. eh, ñu ñaanal eh, Sénégal yëpp yàlla def jàmm loolu mhm. rek la amul beneen solution dégg na amul beneen solution lanoon ñaan yàlla sunu borom def jàmm ci réew mi waaye baaba du la bàyyi noonu lii nga gis nga xam ne mooy mbas ci réew mi jaay nañ cee wax ay tegtal tegtal yi ñu ci wax mooy bul nuyoo bul laale bul laal kii amul accolade amul dara est-ce que loolu yaakaar nga ne dàq na jàngoro gi waaw parce que bu fekkee ne état gis na ne sorelante diggante yi ñooy tax loolu mu ñu moytu ko on a cas ñu def loolu lii am solo mooy nañu set c'est les priorités les priorités de l'État mooy nañu set nañu moytu dajaloo yi nañu toog suñu kër et je pense que loolu nekk na loo xam ne tey am na résultat résultat bi ça se voit que ne yi respecté nañu les point focal yi nga xam ne état doxal na ko. jërëjëf état bi wax dëgg yàlla la mu war a def def na ko Baaramal wax na ko léegi léegi waaye Baba du la fi eh. li tax du la fi téye kilifa googu nga xamante ne nii yéen ñaar yéen a bokk génération. ñu gun ko xam ci Youssou Ndour. Oh. génnee slogan bu bees peq boo xamante ne nii moom la ñu yooyee daan corona. Oh. Baaramal ñu koy xaar ci yow. Oh. lan ngay wax waa diaspora wax ko waa Sénégal wax ko sa mbokk laa lii nga xamante ne nii moom la ñuy déglu. ñun ay cubbaalo nañu. ay cubbaalo. cubbaalo. cubbaalo mooy léebu boo xam ne e, ci Haalpulaar. ci Haalpulaar nga ñu ne fii am na jasit ci géej gi. Mm. ñu way ba jasit bi génn nuyoo. nga te du la màtt du la laal. boo demee podoor nga laajte cubbaalo yi. Mm-hmm. dañu lay wax ne am na woy boo xam ne boo ko woyee. Mm-hmm. bu amee jësit dafay danga koy woy ba jësit bi génn da nga yaakaar ne sax jasit bi nit la. dëgg la. kon loolu euh, yàlla may nañu ko ku yàlla may loolu nag yàlla mën na laa may nga way woy boo xam ne soo ko wayee jàngoro bi bu fekkee jëmm doomu aadama la war a mu nekk loo xam ne dafa jaaxal nit ñi mun na dellu fu mu jógewoon woon la waaw waaye baaba leen rek moo ci jaaxal wax nga ko say biiri wax yéen ay ci bëla ngeen dex bee da ngeen di way ba yéex bi na bëxët ñett génn ci ci biti ngeen jàkkal ak eh. du màtte du songe te du def dara eh. te day réglé eh. li ma ci jaaxal mooy lii jàngoro la waaw jàngoro la joo xamante ni nii baaba kenn du ko laal mm-hmm. xam nga li muy bañ a mm-hmm. julli mm-hmm. dajaloo di julli xam nga li muy bañ a laamisoo nuyoo yii la jàngoro bi bañ yaakaar nga nii euh, euh, euh, ci sa carrière mën nga cee fent leen loo xamante ni nii boo ko waxee jàngoro yi jàngoro yi mën naa am mën nañu ab réew mi suma baay suma pap da doon noddu ci jàkka ñëpp xam nañ ko boo demee Podor nga laaj dañu lay wax ne papam noddukat la woon laa ilaha illallah te kenn ku nekk am nga loo xam ne dafay des ci yow day des ci yow daafa ñaafa di taabati keewo jingo de keewo yittiri bibi ala aissata gelleje mbadde e humu ko kaadi ndiyam mo gattudama mo gattudama wonkala yoɓata wonkala ñamlo so haali ko goddel walay mbimi mbimi hajji hmm. kadi ka hankkotiri ko mbimi hmm. so allah jiirima jadde ma ka tattan takana coronavirus la ilaha illallah eyi baba nan ceew yakar eyi <laughs> eyi léegi baba fen rek laa bëggun nga yóbbu nu fa nga xool ci sa répertoire loo xamante ni boo ko wéyee jàngoro ji ah jàngoro ji dina nu abal nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na jàngoro yàlla jàngoro ji abal réew bu ko baba maa looyee uh-huh. ba man la ngay wax jàngoro ki yeey dama koy way da nga koy way su ma ko wooyee nga jàpp tey bés bii hmm. tey la lan tey la sodi ban bés laa wax tey la neuf tey la neuf le 9 mai le mai dootoo dégg kaa Sénégal le 9 mai waaw doo doo giti kaa bu garaw nga ni bu soobee yàlla laa ilaha illallah baa boo ko kamul danga nga koy wax ee eh. nit boo ko xamul da koy wax eey. way dégg lii nit ki wax bu ma bàyyee way. Hmm. di nga indi addiya ci man. la ilaha illallah baaba baaba ma sonn ci. eey eey noon ah noon. noon noon eey noon. eey e eh, noone noone kolora kolora wiri sanni cadde e eh. kolora wiri se cadde caddel maayo wallayi ñidda fa ñafade taame nde keewo jingo degli nde keewo yiitiri la ilaha illallah bibi ali aissata geleeje mbadde wumuko kaadi ndiyam la ilaha illallah eh, e baba malwayga mo gattuɗamo wankalayoɓata ñamloo sa haali ko keddo ceerno la ilaha illallah inari lay nara ey ceerno ceerno wallayi ceerno cheikh oumar <laughs> oumar fouti wuttaali ey radiallahu taala anu ey ceerno wallu ñooy ceernoy la ilaha illallah misaali bambate ey eh. ey eh, noone baamam mm. baabam neenam nee laa ilaaha illallaah. Fatimata bintu Rasulullah. Eh, eh, eh, baba joodee arjana moo ci ne awut ci. wallaahi. lay baba. yaa ngi ci taxaw ala boli ma ye ala noon. eey noon. ni naare noon eey wallaahi. laa ilaaha illallaah. jaddu maane. sinteeli wallahi wallahi wooy caare laay caare caare caare ndamta hmm. ndambe de ko tooni ko tooni jandaare ke bandaare candaare ke dafa ñaafaade keewo jingo nde kewo yiitiri bibi alaycha to guelleje mbaɗɗe humo ko kaadi ndiyam walayi mo gattudama mo gattudama wonkala yuɓata wonkala ñamlo coronavirus hacce ko jotte la ilaha illallah président maky sall woddoni kamande gueeɗo e eh! ardiane maayo bandiraɓe sadio koɗo jonɗo fatimata la ilaha illallah eh, hey mi juurima ɗigilli allah jaddimane sallake badam ah! aliwano salmini en mbaddam mbaddam ari gandate galdal